sëriñ Basiiru noo ngi lay néew ci turu sëriñ ma sàmba ak jawrinam di sëriñ Maamoor Mbàkke ak sëñ Abdul Xabiir ñoom ñi nga xam ne ñoo fi nekkal Seex ma Massamba liggéey bi defe naa ci ay 2016 ci mujj 2016 daal la sëñ Sidi Muxtaar yabal si woon nga ñëw seet si leen ñoom jaar ci man ñu ànd dem ci ñoom nga wax leen ni ko sëriñ bi bëgge leeral leen ko ñoom it ñu ñu nangu ko bu baax ndax xam nañu ne lu mel noonu liggéey nañ ko ba tàyyi liggéeyal ko sëriñ bi ndax ci jamonoy sëñ Abdou Lahad bi muy def këru euh, boobu ci jumaa ji da ko doo ko wax sëñ Mahmoudan ne ko dama bëgg kër gi doon këruk sëriñ Touba leeral ko la aju sa kër ga lépp sax këruk sëñ Touba nag day am ay néeg yu yu bari néeg yu yaatu ma bëggoon kilifa gu ko man gu nekk defal ma fa benn bâtiment boo xam ne danga nga ko def muy sa seere ëllëg sa digganteeg sëriñ Touba sëñ Mahmoudan ne ko waaw moom kay noo ko bëggee rek noo ko bëggee rek noonu lay deme ba ñu ban digal la ñëwee ba noppi mu woo njabootu sëñ Masamba gépp ñu teew ñi booba ñu baree ngi fi sëñ Saaliwoo ngi fi sëñ Abdul Baaxi sëñ Abdou sëñ Abdou mi xalifa tey ak waa kër sëñ Modou Fatick yëpp boo fekk na sëñ Modou moom jiitu woon na waaye waa këram a ngi fi woon ñëpp a ñëw sëñ Cheikh mi xalifaam ak sëñ Fàllu mi topp ci moom mu waxtaane ko ñoom ba mu àgg ne leen nag li ma ci bëgg mooy sëriñ Tuubaa su la liggéeyloo ab liggéey su geesee rek na la na la ca gis ñu fexe ba mu sont ni mu ko bëggee te mel noo xam ne dana dëppoo ak bërëb bi fekk defar na plan yi jox ko jox benn plan bu mel noonu jox ko yépp dañoo niroo woon boobu sëñ Moustapha Bassirou moo def mbaar moom rek moo fi nekk noppeegutoon sax booba mu jox benn bi sëñ Mahmoudan ba ca des mu joxoon ko sëñ Abdou Sakkoor Fall ba ca mu jox ko waa Daaru Salaam moom ci boppam mu ne man day damay jël may itam liggéey du ma liggéey lu kenn te liggéeyu moo def étage boobu liggéey bu rëy def ko néeg yu yaatu fekk na yëgal na ko kilifa yépp nag ku ne defloo na la ci wax wax na la ñi jël daal mooy ñii <clears throat> bi ñu defaree ba mu noppi mu ne sëriñ Tuubaa kenn du ko jox lu matut danga koy jox lu mat nañ fexe ba mu meubal ko meubal ya ci war ba bu ñëwee xam ne dugg rek a ci des ndax looloo jaadu moom ko defee mu seet ku mën a liggéey ku mel ne Modou Ndiaye di Ndiaye moo ko def bu waasari Xaadim Rasul mu defar meuble yëpp ñu niroo am ci boo xam ne néeg bu xaw a mag la mu def fa benn bibliothèque boo xam ne daf ne moom da koy def addiye bibliothèque boobee sax moo tax mu xaritoo ak sëñ Abdou Lahad ndax ba mu ñëwee gis ko dem gis salon yi dafa yéemu lool ne ko euh, sëñ Mahamadan ku la doon defal li mu ne ko ku ñuy wax di Ndiaye mu ne kooku dina nga ma booleeg moom mu ñëw fi boole ko ak moom moo mujj di di ko defal lépp lu aju ci ci ministre yi loolu la sëñ Mahmadoun defoon ci liggéey boobee ah yu bari aju na ci waaye lii ëpp solo mooy lool rek moo ci am solo jëf na ko daal na mu ko war a jëfe jébbal ko ko na mu ko war a jébbale dem kon bu ñu toogee ba jamono dellu siwaat ñu soxla lu mel noonu fii ci daru Marnaan ñu yónni la nga ñëw wax ko sunuy kilifa ñu def nu ci jawrin ba noppi nangu ko nangeen wu rafet boo xam ne dara manki wujja li liggéey liggéey bi li dewi bi bari bari njaboot gépp a ko bokk kër gune dañuy am jamono joo xam ne bu ñëwee dañ leen di woo ñu ñëw dajale yiñ ci war a def lépp lu ci war a jëm si lépp doog a dajale lu jëm ci addiye waaye dajale lu jëm ci daaru karim itam bokk dañ fay def waaye yooyu yëpp nag dafa mel ci misaal ne taxawul waaye nag la ci doon dox doxin wu yam la woon ndax liggéeyub sëriñ bi kenn du ko booleeg beneen liggéey mas naa am benn bis sëñ Touba biñ koy def lëggéeyloo kër sañ Touba gi ci dëkk bi am koo xam ne da doon tabax ca ca biir kër gi sotti fa suuf mu jóge ci jàkka ja mu jóge ci jàkka ja romb ko ne ko fi def suuf si ñu ne ko diw mu ne man de su ma sañoon bu sëñ Touba yi lëggéeylu kenn dootu defar dara dañuy téye lépp ba lëggéey ba noppi kooku ne ko suuf soo si def naa ko addiyee nañ ko saare ci peñ ceet gi foofu la pëste fa sëriñ Mahmoudou nekkoon sëriñ Moustapha mi yàlla dogal muy xalifa Seex ma Masamba tey moom it noonu la meloon ndax moom ak sëriñ Mahmoudou moo doon jëwlinam ci wàllu gu nekk bëgg ko lool def ko sëriñ waaye def ko mag lu mu nekk ñoo ci bokk nekk lu ñuy defit kenn moo cee jiitu kenn ku ñëw fekk ko ca noonu mooy doxalin sëñ Moustapha mi sëñ Mahamadan gërëm ko lool sant ko lool wane na day Moustapha day jàmbaar nga yaa ngi góorgóorlu bu baax waaye kenn du la tane te loolu yàlla dogal na ko mën naa bis mu ne day Moustapha mi daal yàlla na sëñ Tuubaa dimbale ci moom ba kenn du ko ba kenn du ko tane noonu moo doon aw doxinam yàlla dogal na doxin woowee ñoom ñëpp ñoo ci maase woon sëñ Saaliwu mu fi nekkoon di seen mag booba gannaaw sëñ Mahmouda ak sëñ Abdou Baaxe mi nga xam ne moom itam ku ñu ràññ woon ci taxawaay la aku doxin ak fonk kilifa ak bëgg lu baax daawul dem di tukki li muy di tukki tukki lu muy bari bari balaa dem day ñëw tàggu sëñ Mahmouda bu ñëwee nuyu si ko noonu la doon doxee kër sëñ bi kër sëñ Massamba daal ñëpp benn la ñu woon sëñ Modou Faty Khary dem na bu yàgg waaye doxinam moom moom sëñ Mahamadan rek la defoon muy léppam loolu nag joxante cër yooyu mooy li nekk ci kër Seex sàmba ba léegi dara jógewu fi ñii fi nekk tey sëriñ Maam Moor mooy seen jëwlin mooy suñu jëwlin nun ñëpp liggéey bu ñuy def bu ne fa moom lañ koy waxtaane luñ ca def foofa lañ koy defee ba mu dox ni mu war a doxe duñ ca def lu dul di ko rendre compte rek noonu mooy doxin ci loolu nag ñuy sàkku nga wax sëriñ bi mu ñaanal njaboot gi njabootu Seex sàmb lañu waaye taxawaayu Seex sàmb rekk lañu am muy pësteef ba mu amoon ci sëriñ Tuuba muy bëgg gi mu ko bëggoon muy cër yim ko joxoon muy wéy wéyjur di wu mag di wu sëriñ ndax umpul kenn ne lépp lu Seex sàmba am ci Sëriñ Tuubaa rek la ko jële bi muy gane àdduna sëñ Mor Anta Sali nekkul àdduna moom moo jóge Mbàkke dem ba ba ba ba Pataar ba Pataar Pataar moo ne ci Ndendang Njaay waaye Pataar ma nga ca Ndendang Njaay mu tudd ko wutal ko wutul ànd ak maam Thierno Birahim ànd ak sëñ daam Abdourahman ak man ñu bari loolu fa tabaarakallaahu kon moo mel ne mooy waajuram la ca des it léppam ci moom la nekkoon moo ko yoroon moo ko jàngal dalal ko alquran jox ko ñi ko jàngal alquran ñëpp ba ñu mën ko jox ko ñi ko jàngal xam-xam ba mu am xam-xam boo xam ne wóolu na ko ci xasida yi dénk ko loolu doy na sëkk xam-xam ndax su fekkee da ngaa taalif dara maasuñu ko defuñu ko defuñu ko dara nga jox ko ko mu mën koo def te mësuta soppi dara ci lu mu def loolu ak may la te xam gu mu xamoon ne mën na ko moo taxoon mu jox ko ko Sëñ Tuubaa nag dafa mel noo xam ne kenn ku ne boo boo gisee ñooñom ñuy wax day mel ne moom rek moom rek la defal te fekk na ñëpp la defal nag kenn ku ne jox na la cër boo xam ne doy na la sëkk liggéeyloo na lay ci lim war a liggéey ku ne maam lim ko liggéeyloo dara mënu koo ëpp maa ngi dem tukki nekkal ma ci njaboot gi kenn mënu koo weesu xaakasa ba ñoom ñëpp jeex kenn ku ne teg na la fu la teg foo xam ne fii wóor na ne kóolute la ak liggéey loola nag njabootu boppam nag waxaale wuñ ko moom jëmi boppam lañ rek noonu lañ leen def moo leen yar melal leen ni ñu mel def leen cër yi ñu am ndax koo xam ne kenn ku ne bu yàlla dogalee nga ne xalif général des mourides kenn du la xàmmee ak ku njëkkoon a doon ci jëf ci wax ci doxin wu rafet ci fonk taalibe fonk dëkk bi ñoom ñëpp ña ko si Modou Moustapha ba ci sëñ Saliou mii fi mujj noonu rek lañ doxe woon loolu nag war nañ cee am mbégte bu baax nun taalibe yépp ndax am kilifa goo xam ne fa tabaarakallaahu mën na saayiram man baatinam yombut te moom yàlla dogal na ko ci moom kon kon sëriñ kon sëñ Tuubaa noonu rek ko am keneen amu ko leneen la ca des itam mooy liggéey bi taxawaay bi ci njaboot gépp taxaw te am ci pësteef lu yéeme la fa tabaarakallaahu sëriñ Fàllu mii lañ jëloon def ko muy trésorier luy ñëw ci moom lay jaar te du trésorier kër gi rek trésorier lu ñuy def lu ne moo yor xaalis bi dërëm du ca manki lu ca nekk dana ca def nañ ca war a def mu àgg kooku mat naa xam bu baax a baax ñeneen ñi ci des nag ku ne jawrin nga ci fi nga nekk yaa ngi doon jawrin commission culturelle nga xam ne dangay topp toppatoo wàllu diine yi am na ñu ko fi yor ñu bari am na ñoo xam ne ñoo topp ca ñooñee mooy mel na sëñ Seexum sëñ Modou Fatou Khari topp ci nut ñi ak sëñ Fallou mi ak sëñ Cheikh moom sëñ Abdou Baaxe ak magam mu nga xam ne moo fi nekk di xalifa sëñ Abdou Baaxe tey kon kër gi noonu lañu doxee ak euh, sëñ Moustapha nag moom mooy lépp moom moom mooy xalifa bi te nangu loon ko ñëpp nii sëñ Muntaxa mel rek noonu la meloon ku fi ne xalifa def na la ngay kilifaam mu topp la toppin wu rafet ànd ak yow wu rafet ba yàlla dogal tey mooy xalifa ñoom sëñ Ahma mooy mooy mooy mooy mooy taawam sëñ naa moo ca topp sëñ Uway Sumi moo ca topp ñoom itam taxawaay boobu rekk lañu am ñoom ñëpp ñu ànd di liggéeyal Sëriñ Tuubaa di liggéeyal Seex Masàmba di leen liggéeyal ñoom ñëpp loolu mooy li nga xam ne moo tax lii ñu mën koo réaliser léetam lii ni muy niru niru lu am solo lool euh, lu xeebu ci nun la ndax xeebu gi mooy sëñ Tuubaa loo koy defal lu ne lu mu rëy rëy doo ko gis yow loolu mooy li nga xam ne foofu la ñu nekk te moom mën naa fay ku nekk mën naa fay lu ne sëñ Mahamadan dafa daa wax ne sëñ Tuubaa man man mën naa fay te lu mu fay dana ko ful loolu lay loolu lay wax kon liggéeyal ko yomb na war naa yomb liggéey bi nag 2016 la ci mujj gi ba 2020 yi ñu mën koo jébbale tey dont sax matul nañ bëggee waaye nag eh, dox na ni mu war a doxee daal ni mën a doxee daal doxee na ni fa tabarakallahu Ah, nu bëgg sëriñ bi ci boppam di sëñ Muntaxa boo ko ko leeralee ndax sëriñ Moustapha dafay kilifa kilifa am ah, tuubaam kenn du doon kilifa mooy kilifa ñëpp waaye wayjur la te la koy lay lay lay tax lay jëmmal loolu mooy mu ñëw fii fekk leen fi mu sant leen gërëm leen ñaanal leen loolu mooy la neex fa ñoom mooy la neex fa ñoom sa ñëw gi mooy fondement wu loola ndax bañ koy def lu yow lañ ci yoon yónni woon kon bu noppee yow lañ ko war a wax liñ ci war a def lépp nga def ko liñ ci war a taxawe nga taxawe ko ba mbir mi àgg na mu war a àggee sotti coleet ñu jébbal leen suñuy caabi delluwaat déglu ndigal am nañ liggéey bu mag yu ñu war a def muy liggéeyu Seex sàmba muy jumaa ji mag a mag yoo xam ne ci jumaa yi gën a rëy la bokk dañ caa dañ caa xeroon lool ba mopp waaye teewul mi ngi dox ndax daanaka dégg naa raase moom dañ ko soobee yàlla dañ ci jëm boo weesoo beneen liggéey bu ñu def rek ñu ànd ca noonu daal lu ñu defal Sëñ Tuubaa rek noo ngi noo ngi dégloo lé ci am solo nag mooy taal bii nga xam ne seen loxo dem na ci liggéey bi te béréb boo dem fekk fa ñooña ka gën a néew doole ak ki ëpp doole ñoo yem képp kenn ku ne sa pëstéef ngay jëfe ak sa man-man kenn ku ci ne ci ñi gën a am doole def nañ ci li ñu man lépp ah, ñenn yi nga xam ne moom it seen kàttan yem na diggu doomu lañ ci war a def def nañ ko ci ñi néew kàttan nit ah, def nañ lañ war a def dégg naa sëñ Bamba Leeba dafa jóge woon Saalum di ñëw di seet si sëñ bi ba mu ñëwee ba ci yoon mu romb koo xam ne ko ah, sëñ bi fooy mu ne ko damay siyaare ci sëñ Tuubaa mu génne mu génne mu génne ab dërëm xaw ñaari dërëm jox ko ne ko boo demee joxal ma ko dama fi dara waaye lii rek laa fi yor de bi mu ñëwee mu joxe addiyaam ba mu mat sëkk mu defe ne ñaari dërëm yooye waru koo mën a génne di ko joxe sëñ bi ne ko lu luñ la yóbbante woon mu ne ko ah, ah yool bante woon nañ ma kay ci yoon wi fekk naa fi taalibe bi boo xam jox na ma lii mu ne ko lii ak addi yi ñuy joxe yu gën a mag yëpp lii li moo gilee yem képp kon sëriñ Tuubaa moom noonu la meloon parce fam foofu la nekkoon ku koy liggéeyal ku ne daal la nga yéene nga fas ko ci suñu borom dana la ko defal li daal mooy kàddu yi nga xam ne amoon nañ ko bëggu ko jottali sant la yow itam ndax ku lay taxawu ba nga liggéeyal sëriñ Touba war nga koo sant noonu lañ ko gisee voilà kon ñoo lay gërëm du baax la ñaanal yàlla bu baax yàlla dolli la sutura te gi nga xam ne say kilifa am nañ ko ci yow yal na ko suñu borom jëme kanam te jàpp nañu ne itam suñu borom dana ko def ndax koo xam ne buy wax du waxal boppam du gis boppam ci wax ja la muy wax lépp ci sëriñ Touba la koy teg teg ko ci ñi fi nekkaloon Sëriñ Tuubaa rawatina Cheikh Abdoul Ahad kon sa doxin lépp rafet na yal na la yàlla dolli sutura bu baax dafa la tawfiq ak taysir jaajëye lislaam